Moustapha Gueye Junior da moom benn mbër la rek boo xamante ne nii benn mbër la boo xamante ne nii euh, yàggut dugg si làmb waaw def na fi ay jaloore nag waaye xam nga rek euh, ñàkk taxawaay ak ñàkkoon ñu ñuy jàppale moo taxoon ñu xaw a yéex si làmb ko maa ngi dugg si làmb sa deux mille deux mille dix. waaw am na douze combats trois défaites la am waaw. Boy Sine bu ak moom moo daan.

làmp yi dañoo fay foog ñu xaar tuuti ñu defar lamp yi léegi sama staff ñu ma àndal yëpp na ma heure bi ñu la joxoon jot na dama nga ñibbi ma ne ko kii maako ko te bëgg ma yàq journée jàmm ndax man du ma bëgg a yàq journée jàmm quoi promoteur bu tëggee làmpam def sa xaalisam bu tëggee làmpam def sa xaalisam du ma bëgg yàq journée bi ma ne leen bàyyi leen bañ defar làmp yi rek léegi lañ dem ba ay 11 heures su guddi sama grand bi na ma jógal nga ñibbi làmp ji kii bi jeex na ma na ko déedéet bàyyil ma bëri dama koy daan incha allah ñu dem ba taalaat lamp yi bañ ko taalee nikkatee ñoom sama tur dëgg moom moo leen jaaxaloon si lañ jël nag sama licence si si arbitre yi jël sama tur jàppale ma bañ ma jàppee nag ba pare si lañ ma woo na ma ñëwal sëgg ba may ba may jógee sama cumukaay di dem si digg géew bi sax mënuma gis bu baax lam booba ma gën a métti sama lam dañ ma jàpp sama galaaj ba ma yëg ko si ay kàmb laay dugg. mystique lu am la lu am la ndaxte am na sama waa ji dem bëre ji benn mbapat mbapat ma bëre ji woon dem naa ba final waaye waa ji dama ko wër nda dama ko wër ndoom ma nelaw ba dañ maa mujj jàpp yóbbu ma si biir dëkk bi foofu laa yeewoo wër ndomb kese laa ko def nelaw te gars yi waxoon nañu ma ko xale bu tuut sax bu sew boo xamante ne lesee la daanoo dem poids lourd waaw am na de. parce man ma seet euh, déedéet benn saison daaw laa bëriwul ndax daaw jéeg bëri naa spécialement ak Boy Naar Fall si combat Forza ak Abdou Diouf waaw ma daan ko Diourbel waaw waaw kay ma daan Boy Naar Fall te boobu komba boobu dañ ma joxoon tafaatin numéro 2. ba waaw bañ demee ba ne combat bi bañ ne combat bi suba la. après si la euh, Tafatine delloo avance ñu jox ma Boy Naar Fall su guddi gi ñu ma ko joxee après gaañ bi woo ma ma Jackson nee na nga jàppale ko ndaxte bëggul yàqu journée bi waa ji daw na léegi dañ lay jox keneen si guddi gi man amul problème nañ ma jox si lañ ma jox Boy Naar Fall ma daanal ko foofu te fekk noonu si biir semaine bi daanoon naa ko final nak fi ñu wax Ngoye Mbayar. est que yow gars yi tamit euh, Tapha da nga leen di jàpp ci kàlla ba bu ñu parce que combat bi nga war a bëree le premier. Euh, ñu ngi may xamal keroog ñu naan signature de contrat ba à Rufisque mais eh, waaw ba fi muy nii a bëri le sax man dama nekk mbër moo xamante ne gàllaaj moom après la rek man déedéet man damay entraîner man chaque jour maa ngi entraîner damay dem si mbapat yi man damay mbapat moo tax gàllaaj du ma ko sóoraale balaa maa dem wuti gàllaaj combat bi na des semaine te sama paa yi laay tollu fii woo la nekk Casamance rek ñu def li ñuy def. parce que fii laa nekk di entraîné ndaxte man dama nekk mbër moo xamante dama luy waxante bu ma daanoo dama la koy jox bu ma daanee dama la koy jox ndaxte yàlla mooy maye ndam sëriñ bi mën na ñaan def lu nekk jour ba yàlla xañ la ko ndaxte kenn deful lu tax yàlla di la jox chaque jour victoire. waa léegi sa adversaire Bolo. naru hmm. woo na ma biig fekk na ma voyagé woon ba ñibbisi ba ma ñibbisee Bolo. parce sama xaalis yëpp jeex na si moom ndax sax yi ñu ma doon wax yëpp génne naa ko parce que ñàkk naa deux cent mille si ay saxax ak ay galaaj ñu ne ma Bolo dafa feebar mënut a bëri na nañ ko xaw ma vingt et un jours yoo xamante du ko entraîné si la ma joxaat keneen booy bu dëkk xaw ma Kër Massar mbooloo ñu koy wax kii nii euh, armée armée nan armée lourde moom lañ ma jox léegi léegi la ma waat ne ma légaliser nañ combat bi. jékki-jékki ah, Euh, sa grand combat ñu suñu la adversaire boo xam ni xamuloo ko mosoo gis ñuy bëree xamuloo mooy kan est-ce du risque aussi du. waaw xam nga ne boo nekkee dangay yàgg di bëree mbappat di ànd ak ay ponkal yoo xam ne da ngay contact ak ñoom lu mel ni Zos Thiaw ak euh, Saafando mii ah dañu euh, koy wax yàlla ko bale di ànd ak ñoom chaque jour contact benn mbër war la jaaxal si làmb ba pare boole ko chaque jour yaa ngi dem si mbapat da ngay dem mbapat am lu mat 20 jours si àll bi campagne. waaw ñoo mosoo leen gis ma la ma daan si mbapat yi fii nii da nga ay ponkal yu bëri parce que tanoor bu lamsaar daan naa ko tampon daan naa ko sita ànd nag mbooloo seen écrit yi ñëw Jurbel fekk ñu fa keroog sama benn grand frère moo ko dóor mu daan booy yi des yëpp ñu ñoo leen daan ak yeneen booy yi rak rak moo di ante yi nekk Thiès ngoye ngoye laa leen téye par kenn par kenn par kenn par kenn final nag booy yu bëri dama di daan mbapat sama bët fu mu tegee mooy saa yu ma daanee ba toog si plateau bi dinaa ko wax ñëpp di ko dégg ndax man bokk ma mbir yi nga xamante ne duñ tudd tur man damay tudd ndax dama am ci fula si li may def am si fit moo tax jour ma daanee képp ku den ak man da dégg ñi may laaj te ñi may laaj ñëpp nañ xam ne war naa bëri ak ñoom bu neexee yàlla li mel ni ñagas war naa mën a bëri ak moom pakala war naa mën a bëri ak moom. waaw man ñoonu laa bëgg ponkal yi ñoom ñoom ma arrangé ponkal yi ñoom ma arrangé pakala war a bëre ak moom assurance war naa a bëre ak moom waaw war naa a bëre ak ay ponkal yu bëri fii a bëre ak ñoom kuy contact ak Malick Niang di contact ay poids lourds kay ah, may may poser cent vingt kilo ah ñu ma doole